العاشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم وكي جلتي السلام عليكم ورحمة الله دائرة المسلمين والمسلمات ginaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi julli ci sangu-sangu yi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan sunu borom azza wa jalla yal nañu yàlla boole jéggal defal nu jàmm defal nu tawfee defal nu sutura ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp ñu ñëw tey sunu bind ak juróom-ñaareel ci téere bi ñuy wax Axdari yu tey jii ñu ngi war a ci wala yaxiilu له زهبة فاسق ولا مجالسته لخير ضرورة ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخارخ قال الله سبحانه والله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين وقال عليه السلام لا طاقة لمخلوق في معصية الخالق ولا يعيله أن يفشل فهلا حتى يحلم حكم الله fiihi wa yas'al al kon boroom téere mu ngi dellu di wax rek dellu di gën a jàjj nit ki naa wala yaaxilu du dagan loxo ñeel mukallaf suhbatu faasix muy soppa koo xam ni ab faasix la war na si jullit daal maanaam warula fekk koo xam ni ab caaxaankat la wala jubul wala diini da jëm ne momu mu jëm ne nga def ko ab waaw wala mu jaalasatuhu du jéggi ni sax ngay toog ak di xayri daruratin lu dul lu manta ñak waaw lu manta ñak nak moy lo xamni ben ngeen bokk fu ngeen wala bokk ngi bokk ngi fu ngeen ni dem di voyage wala ngay febar defa fa faju man tol mo manta ñak léeg-léeg diggante jullit ak kuréel jullit mën nañoo seq yu mel noonu ak yoo xam ne daal lu mënta ñàkk la waaye nag def ko kom ñooy def jullit ñu loolu moom warul kon daal lu mënta ñàkk la mën ngeen si jëflant waaw wala yat lu bu dédi sakku tamit ridda almaxluqin gërëmal nit ñi gërëmal mbindeefi bi suqtil xaarixi si meram aji bind bi la waaw si meram aji bind maanaam yaa ngi sakku ngërëmal nit ñi te li lay nit ñi gërëme yàlla mi la bind moom lay mere si loolu li lay nit ñi gërëme nit ñi ñoo lay see gërëm ay fekk yàlla moom bëggul loolu kon loolu perte na kon lépp lu lay gërëme na fekk yàlla gërëm na waaw bu la nit ñi gërëmee lu gërëme loolu bokkul ngërëmal yàlla bu boobaa day mel ne loolu perte na waaw moo tax mu ni xaala wax na allahu yàlla subhanahu wa taala ñeel na yàlla wallahu yàlla wa rasulu ak ab yenanteem a xaqu ñoo gën a yeyoo an yurduhu ñu gërëm leen waaw bu fekk gërëm rek am diggante mu ne maanaam yàlla ak yeyante bi ñoo si gën a yeyoo waaw moo tax na bunu di jaawale wala di jaxas dañ ne kurul kurul doomu aadama defal lu baax ñu ne war nga koo sant ñu ne kurul sant nit ko sant yàlla na kon lu mu mën a doon na fekk ngërëmal yàlla ak ngërëmal yàlla bi jiitu su loolu wallahu yàlla wa rasuluhu ak kab yananteem a xaqu ñoo gën a yeew an yurdu ko ñu gërëm an yurdu ko si ngërëm in kaanu muminin fekkee nekk na ay way gëm am na benn hadis sax buy wax xam naa ne moom lay junj fii naa waxaal alayhi salaam la taaxata li maxluqin fi masjidi xaaliqi mu ne waxaal waan alayhi salaam yonente bi mu ne laa taaxata bul toppali maxluqin ñeel benn mbinde fii masjidi xaaliqi si mooy aji bind ku mu mën doon bu ko topp si ak mooy yàlla yàlla mi nga xam ni moo la bind doomu aadama maanaam nga bàyyi li la yàlla de dégal maanaam dem topp ki nga xam dañ ko bind comme yow mu lay mayloo yàlla loolu moom nee na kenn di ko def waaw bul topp mel ni bindeef si li nga topp ak mooy yàlla la wala loo xam ne dalay jural ay bàkkaar looloo xam ne ëllëg mën nga sa am ay jafe-jafe sa diggante ak sa borom. wala yaxilu lu dagan lahu ñel mukallaf an yafcala fihlan xata yaxlama xukma allahi fiihi wa yasal alxulama mu ne lu dagan tamit si nit ki mu ni an yafsala fihlan di jëf benn jëf xata yaxlama loolu da ngaa xam xukkam allahi attab yàlla fii sa jëf yooyu ngay jëf mu yasal boo xam ne nga laaj alxulama yi ñu xam maanaam mooy nit ki lépp lu mu mën a def rek lépp lu mu mën a doon da ngay laaj boo xamul laajal lu mu mën a doon nag muy jaamu yàlla muy leneen bu fekkee xamoo boo laajee rek ñu wax la ni mu demee ak lu mu mën a doon lu mu mën a doon rek boo defee leer rek da daal di xam loolu ni mu demee lépp bon nit ki ñëw ni kërëb si nangam ni cërëb si nàngam ni nii la demee wala nangam a nangam wala nii la nangam te fekk yow demewul noonu surtout maag mbirum diine ah la jëf. na nga ko leerlu ba mu leer la nga door a jëfe noonu kon lu war si nit ki di def di tañaxu rek kon nit ki moom daa waral laaj waaw koo xamul da ngay laaj kala sa tane rek am na ko xam loolu waaw kon su ko defee loolu tamit ñu koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax nit ki daal bala ngaa jëf surtout si mbirum diine laajal bu fekkee xamoo laajal ñi xam xam nag mooy bu ne alxulama mooy ñi xam waaw maanaam li nga xam am na ko la gën a xam wala li nga réere am na ko mën na la koo leeral waaw dem ba si kii jàngi métier ak mu mën a doon lu ma doon rek yow mi yow mi yow mi nga xamul rek am na ko xam loolu boobaa nga laaj ka ba si mbiram diine nag rawate na si mbiram diine wu kenn di jaxase mu ne ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب ده هو الرأي سنيا هم نيوتوب السنة أو آه، الرأي سنيا هم نيوتوب السنة أو آه، لسنة محمد لسنة محمد صلى الله عليه وسلم كل سنة لك ما يلي أن تبي وح جفك دفك دغلك في بايك في بايك في دم أو نبأ نبأ نكتي نيروي تبي سلوا رجلا نطبق waaw mooy bi doon digle ñu nekk sa di jéem a roy la yonent bi doon def kon ñu nit ki na ngay roy si ñi teg seen tànk sunna nga jéem a def noonu mooy allazina mooy gaa yi nga xam ni lu yadluuna dañuy tegtale di digle ala taati laay topp yoonu yàlla kon képp kuy digle topp yoonu yàlla na mu waree kooku rek mu teg na tànkam si sunna wa yuhasirun min itibahi shaytan temit di tere kep ko top yoonu seytaane kep ko taxawee nonu temit manam man na tek na tankam ci sunna wa digle li yalla digle ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak sahaaba yi su ko defee tamit lan doon tere doon ko bañ temit won ngay tere di bañ loola waaw moytu ba bañ a maanaam bañ a waaw wala yarda day di gërëm di naf si ñeel boppam ma raddi yow naka la ko gërëm naka la gërëmoon al muflisoon gaa yi nu falesoon allësine mooy gaa yi xam ne daaxat nan ahmaaroom seen ak dund seeni dund yëpp sànkoon nan ko fii xayri taatilla si lu dul topp yàlla mu ne fa yaa xasartahum woo naa seen ak kutus wala woo naa seen ak ñu ni si misaal ki nekk fii si àdduna man nay ud dara perte si la uti wat am waaye kutus nag ëllëg mooy yëmu xiyaam ki kutus mooy ko amatul dara mënatul uti dara moo tax ñenn naa fa yaa xasratuhum woo naa seen a xutus waaw ci sànq dundam ba mu jeex si ay caaxaan nee na kooku dafa ëllëg bu ëllëgee bu amul sens dina perte dina xutus maanaam perte ba amatul dara lu mu uti amatul amatul foofu moom amul joxe kenn ku si nekk la nga am doyu la waaw moo tax ñu ne fa yaa xasartuhum woo naa seen ak kutus ëllëg waaye waaye yettu la bukaayihim ñoom di leen jooy jooy yàgg ëllëg yowmal xiyaam yowmal xiyaam bi sa taxawaay ba waaye yettu la dana yàgg bukaayihim seen i jooy dañ fa jooy jooy yoo xam ni jooyu yàgg lay doon muy yowmal xiyaam muy bis ba nga xam ne ñëpp dañu taxaw sunu kanamu boroom mu ni nag borom téere bi mu ni nasalu ñu ngi ñaan allahu yàlla subhanahu sella ñel na yàlla an yoo fi xanaa mu dëppalenoog li ci baaxi suñu topp sunnat nabiyana sunna muhammad te sunu yanante wa safi ana kay ajaramu sunu ka nga xam ne ëllëg moo ni ramm mooy aji ramm ju ëllëg wa sayyidina kay sunu sang kooku mooy kenn mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla taas ci barkeem yal na yàlla dimbalinu teg na si yoon jub xoj nee na ihdina siraata mustaqim yal yàlla teg si yoon woowu yàlla jaaralenu si li ko ba ñu bàyyi si li nu neex yàlla aar nu lépp loo xam ni naru nu fëkk yàlla musul na si loolu lépp loo xam ne buñ ko yuutoo am ko sunu ngëm-ngëm rëcc sunu diine rëcc ñu daraat yàlla na si yàlla musal si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy jégalu di siyaare ñëpp di nuyu ñëpp di jégalu bépp njumte bu si nekk rek ñu ngi soxna yi asalaamaaleykum wa rahmatullah